bismillahi irrahmani irrahim sayiduna ibnul qayim rahmatullahi alayhi nee na dafa am benn xaleel bu jigéen bu faatu ci mbas maanaam épidémie ne baayam gis ko ci nelaw ne ko sama ndoom wax ma lu xew àllaaxira mu ne ko bàyyi mbir mu rëy ndeke bàyyi ñun dañ daan xam waaye daaw ñu jëf wallahi benn sàbbal mbaa benn rakka moo ma gënal àdduna ak li ci maa ngi ne ngéej mënoon dellu si àdduna ba wax benn subhanallah wala julli benn rakk moom ma gënal li ci àdduna yëpp ak àdduna ci boppam Ibnul Qayyim mu ne wax ju rëy la jéber bi wax daan nañu xam waaye daawuñu jëf ñaata ci ñun ñoo xam xeeti mbaax yu amul limite te duñ jëf wala lu tuuti bokk lañ cey jëf ñaata ci ñun ñoo xam ne ku wax subhaanallahi wa bihamdihi téeméer yoon yàlla baal sa bàkkaar yëpp su dee toll na ni sax duusu géej waaye ñu tuuti ci ñun dëgg-dëgg ñoo koy def ñaata ci ñun ñoo xam ne ku julli ñaari rakk ci yoor-yoor mu weccee atum sarax atum lëmb bés bu set nga saraxe waaye ñu néew ci ñun dëgg-dëgg ñootal tal julli mbokk yi ñaata ci ñun ñoo xam ne ku woor benn bés rekk te yàlla tax mu dox sa digganteek safara distansu su juróom ñaar fukki at ba pare ñu néew ci ñun ñooy woor wooru gàtt ngal ñaata ci ñun ñoo xam ni ku seeti aji feebar sama borom subhaanahu wa dana jox ndigal juróom ñaar fukki junney malaaka ñu topp kooku di ko jéggalul waaye ñu tuuti ci ñun ñooy seeti ku feebar mbokk yi ñaata ci ñun ñoo xam ne ku gunge néew jullee ko bay rob ko danañ ko jox ci yiw lu tollook ñaari xiraat yonentu mu ne xiraat bu nekk toll na ne doju Uhud waaye ñu tuute ci ñun ñooy dem ci jullee ak dencu néew ñaata ci ñun mbokk yi ñoo xam ne ku tabax jàkk ngir yàlla bu dee sax la nga tabax ni gàmbu picc la toll yonentu sallallahu alayhi wa nee na danañ la ko tabaxal pale ci aljanna yàlla dina la tabaxal ab pale ci aljanna waaye ñu tuuti ci ñun ñooy participer ci liggéeyu jàkk ñaata ci ñun ñoo xam ne ku toppatoo soxna su fi borom këram nekkatut ku toppatoo ay jirim yu fi seen baay nekkatut sama borom subhaanahu wa dana ko fay yoolu koo xam ne fu mu mi ngi ci jihaat fu mu toll mi ngi woor fu mu toll mi ngi taxaw guddi du nelaw koo xam ne fu mu toll mi ngi ci jihaat du arrêté mu bëccëg yëpp mu ngi koy woor guddi yëpp mu ngi koy naafale yonentu sallallahu alayhi wa wax na ni kiy toppatoo jigéen ju jëkkëram faatu di toppatoo jirim yu seen baay faatu noonu la yàlla di defar waaye ñu néew ci ñun ñoo tal loolu ñu bëri ci ñun mbokk yi xam nañ ne ku jàng benn xaraf ci alquran yàlla jox la ci xaraf wa fukki yiw lum tuuti tuuti tey fukki yiw yooyu dana ko ful ba muy fukk ba fu yàlla xam waaye ñu tuuti ci ñun ñooy jël suñu téléphone yi di ubbi di xool alxuraan wala ñu jël suñu kaamil yi ubbi di jàng alxuraan téléphone bi kay jeux yi téléphone bi kay vidéo yi téléphone yi kay théâtre yi téléphone yi kay sport yi téléphone yi kay caaxaan yi waaye ñu tuuti ci ñun mbokk yi ñoo tal jàng alquran te xaraf wu nekk yonentu mu ne waxuma ne alif laam mim xaraf la waaye alifun xarfun wa laamun xarfun wa mimun xarfun mbokk yi ñu bari ci ñun xam nañ ne aj guñ nangu amut lu ko mën a fay lu dul aljanna aj amul lu tollook moom ci fay lu dul yàlla jël la tàbbal aljanna yonentu waxit ne ku aji nam waree sama borom dana la génnee ci bakkaar nga set wicc mel ni bés bala la sa ndey waaye tuuti ci ñun ñooy aji mbokk yi how many of us ñaata ci ñun ñoo xam ne teraangay jullit ak tedd ngaam mooy taxaw guddi ak ne yonentu sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom la ñu wax ne moom lañ bëgg moo ki saxaabaam moo su ñoo sàgganee julli guddi ak li ñu bëree woon soxla yëpp ci jihaad ji ci jaamu yàlla gi ci toppatoo ci wut lépp loo xam ne war nañ ko wutal seen njaboot waaye jëfi bëccëg yi lim bëri bari coono yi du leen tere taxaw guddi waaye ñu tuuti ci ñun ñoo koy def ñaata ci ñun ñoo xam ne mbokk yi bés penc dañu dikk te lépp luy dikk rek jege si na waaye dëgg-dëgg niñ ko xamee ñun ñëpp mu wóor ñu dafa mel ni noonu lañ ko réeree ndax ñu néew ci ñun ñooy préparé bés boobu ñaata ci ñun mbokk yi ñooy ñi nga xam ne danañ. rob néew jullee ko ba pare xalaat ne kii mën naa am maa ci war a topp dëgg-dëgg ñu néew ci ñun ñooy xalaat ni ñoo war ci néew bi buñ sax mën naa am balaa déwén am ñu manqué kenn ci ñun daanaka du xalaat ne moom mooy kooka te ku nekk ci ñun xam na ne noyyi goo noyyi rek boo noyyee tee geneen sama borom la neex te amul kenn ci ñun ku mu wóor ne minute bi topp ci minute bii may wax ak yéen dina la fekk te lenn rek moo ñu wóor ci suñu projet yi ci suñ kanam ne danañ ci jot mooy dee ak dajeeg suñu borom subhanahu wa taala am yàlla boole defal dégg wala ñu defal topp yu tuuti yi ñuy xeeb buñ ko bërilee rek am lu bëri naka noonu yu tuuti bàkkaar yi ñuy xeeb montagne boo gis ay doj yu ndaw yuñ dajale la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin